te jàll ci sarti julli yi waxoon na laabub xadas maanaam laab ga nga xamee ne da ngay jàpp mbaa nga sangu farata mbaa nga tiim ñu koy tuddee laabub xadas kooko dañ ne woon moom su ngeen fàtte woon lam defoon dara du ca baax faw day defaat mel ne mu julli fàtte woon a jàpp te fekk jàpp war ko mbaa mu fàtte woon a sangu farata te fekk te fekk sangu farata waroon ko wala mu fàtte woon a tiim te fekk tiim doon lu farataam boo ko julli du baax day defi laab ga ba noppi daal di julliwaat ñu woon nag bu fekkoon dafa amut lu mën a laabe ni ki waxtu yu tàmbali na ba waxtu wa jeex te amu fi ndox amu fi lu mën a tiime mbaa am na ko waaye dañ ko yeewu ci misaal bu mën koo laal mën koo jëfandikoo kon julli ga wàcc na ko dañ ne woon it bañ a julliwaaye sobe moom ab sart la ci yorub julliwaaye day fekk rek fàttewoo ko te mën koo boole ja waaye soo ko fàttee mbaa nga tëli ko rek julliwaaye sobe du tey julli ga baax sàng awra mi nga jeexal léegi nag dañ ne woon mën ko rek mooy tax mu war a la soo ko seetalee rek wàcc na la waaye moom nag fàtte ba mu moom du tax mu wàcc la dañ ne woon bu fekk am na lu mu sàngee yaramam mu fàtte ko sangul yaramam julli du tax julli ga baax ci wax ci gën a wóor mu ak si nag ci jublu xibla jublu xibla balaa nekk sart ci julli ga kooku ànd ak xel mu dal amut lu muy ragal ba tee koo jublu xibla te it mu mën a jublu xibla boole ci koo xam daa tawat ba mënta wëlbatiku jublu xibla te gisul ku ko wëlbati jublu xibla ga wàcc na ko koo xam ne itam aw rab wu aay da koy dàq wala ab noon di ko dàq wala mu nekk ci xare ba di yëkkati baatu lislaam kooku àndut ak xel mu dal kooku mën naa julli te du jublu xibla jublu xibla nekkatul sax ci moom nu mën a julli rek jullee ko fàttee jublu xibla nag dañ koy teqale su fekkee moom fàttewutoon ne fee mooy xibla waaye daa fàtte woon ne jublu xibla kat ci sarsi julli la bokk ndegam mën nga ko moom waru jublu xibla ci boppam la fàtte de fàttiwutoon ne fee mooy xibla kooku moom day baamu faw faw faw mu des nag ki nga xam ne seetoon na ba ne fii mooy xibla su may julli itam foofu laay jëm bu ma julli nag mu fàtte ko jëm feneen waaye moom fàttiwutoon ne jublu xibla ab sart la ci yorub julli gi tey seetoon na ba xam ne bu dee julli fee mooy xibla ga ba mu julli nag mu fàtte ko julli ga dana baax waaye dañuy sopp mu baamu ko ca waxtu wa jublu xibla moom am nag jàppandi bu fekkee yaa nga biir màkk mbaa la ko wër nga xam ne jàkkaarloo jëmmi kaaba gi dalay yomb kon booy julli balaa julli gaa baax nga jàkkaarloo jëmmi kaaba gi faaw day wóor ne rek jàkkaarloo nga ak jëmmi kaaba gi bi ngay julli bu dul loolu du baax bu fekkee nag nekk bu màkk ak la ko wër kon dañuy seet wet ga nga xam ne fa la kaaba ga féete rek nga julli jëm foofa ak foo mën nekk tëdd na bi daal moom ndegam nekkoo màkk nekkoo la ko wër nga xam ne jublu jëm mi kaaba ga ci boppam dalay jafe dangay seet rek wet ga nga xam ne fa la kaaba ga féete nga julli jëm foofa rek su fekkee nekkoo màkk ak la ko wër waaye am nga tegtal yoo xam ne ci nga daa tegtaloo ba xam ne kaaba gi fee la féete kon defal sa tegtal yooyee fu la woon rek nga julli jëm foofa moo xam da nga ko daa xàmmee ci jant bi wala ci biddiw sàngam wala ci ngelaw li bu masaa upp waaye koo ci nàngam wala bu fajar masaa fenk moom daal tegtal boo daa xamee xibla rek say boo topp ko fu mu la woon nga julli jëm foofa su fekkee xamoo benn tegtal bu lay wan fa kaaba gi féete nag say boo seet koo xam ne xam na ko te boole ceeg maandu fu mu wax ne la dëggal fii rek nga julli jëm foofa mu ne nag boo xësee xam tegtal yoo xam ne moom ngay tegtaloo fa kaaba gi féete jeex na faaw rek su waxtu jotee nga war a def sa xàmmikaay yooyee ba won la fa kaaba ga féete nga julli dem foofa sa jaan door a wàcc waaye nag doo fekk keneen koo xam ne moom it am na tegtali boppam te bokkliwu leen ko nga seet fu mu jëm rek nga daldi dem foofa moom daal boo xasee xam tegtal yoo xam ne ci nga xàmmee fa kaaba ga féete faaw rek nga def ko mu ne soo gumbawoo nit waaye teewul am na nooy mën a xàmmee rek fa xibla féete kon na ngay woo ko la xoolal nga laaj ko ne ko waaw man de nangam laa daa xàmmee xibla féete ana fu biddiw sàngam féete mbaa ana fu garab sàngam féete mbaa fu nangam féete rek lu mu la wax rek nga xamee ca nag yow gumba gi lu may nag nga dem ci dëkk bu mag fekk fa jàkk mbaa jumaa joo xam ne ay borom yi xam-xam wóor na ne ñoo ko doon natt wala ay borom yi xam-xam ñoo na fa ba tàyyi te amuñu sikki sàkk ci ne moom jëm na xibla jàkk ji mel noonu foo ko fekk rek li ngay am am tegtalee xàmmee xibla mën ngaa daal di roy ci fa jàkk ji jëm rek jàpp ne foofaay xibla koo xam ne nag moom amul wenn xàmmikaay yu muy xàmmee fa kaaba gi féete kon benn day fekk ku xam xàmmikaay yooyu fu mu ko wax rek mu jëm foofa wala mu fekk jàkka ju ñu samp fa jàkka ja jëm rek mu julli jëm foofa moom nag jëm ci sart sax muy jàkka yu dëkku mag joo xam ne ay borom xam-xam ñoo na ko bataay moom ndega moom amul nen nu muy xàmmee xibla rek kon fekk jàkka ja doonte du dëkk bu mag it mën naa jëm rek fa jàkka ja jëm ki nga xamee ne moom amul nen nu muy xàmmee fa kaaba gi féete ñu ne ko woon seetal ko ko xam mu tegtal la mbaa nga fekk jàkka ju ñu samp nga julli jëm fa jàkka ju jëm boo ko bu fekkee ne gisul kenn ku ko xamal fa kaaba gi féete gisul jenn jàkka te wet yépp yoon ci moom mënta xàmmee genn ak genn kon na seet wet gu ko neex mu julli jëm ci mu daal doy ki nga xam ne itam amoon na tegtal li muy xàmmee fa kaaba gi féete waaye bi yoon dafa gëlëm mënta tegtaloo ci nenn nenn kooku it da nga wet yépp yoon ci moom say boo rek fu mu julli jëm mu baax de nee nañ bu fekkoon ne dana table wet gee mbaa wet gee muy yaari wet rek moom day julli jëm ca wet gu ca nekk te gu ca nekk day julli jëm ca mu dogu ne mooy xibla te def ko yaar yëpp nag waaye nag dóor yëpp yemoo ci moom moom wet gum julli jëm rek mu baax ki nga xamee ne moom am na moom daan xàmmee xibla ñu ne ko da ngay def noonu fu mu la woon rek nga jëm foofa su defee xàmmikaay yooyee xàmmikaay yooyu ko ne ko jëmal nee mu tey ko bañ a jëm noona kon dañuy jàpp ne day fo julleen googu du baax doonte gannaaw ba sax seet nañ ko far foofa tombeek xibla itam du ko tax a baax ndax moom dañ ko ne woon xàmmikaay yi nga daan def mu lay wan fa kaaba gi féete def ko fu mu la wan nga jëm foofa mu def xàmmikaay yooyu fa mu ko wan mu tey ko bañ faa jëm ci lu dara da ko tey rek mu neex ko kooku dañ jàpp ne day fo foofee mu julli jëm bu wóoroon ne ca dëgg-dëgg fa njëkkoon a gis du foofu fii la it du ko tax a baax ki nga xamee ne it amul leen nu muy xàmmee xibla ñu ne ko woon da ngay seet ku maandu ku xam xibla fu mu la woon nga julli jëm foofa bu demoon ba gis ku maandu mu ne ko julli jëm fee fee mooy xibla mu tey ko bañ a jëm foofa moom it julli ngoogu du baax ndax moom it day fa rek kooku it ne lañu ko woon boo demoon ci dëkk fekk fa jàkk ju samp say boyoo roy ca jàkk ja fa jàkk jëm nga julli jëm foofa boo demoon ci dëkk nag fekk fa jàkk ba bañ a jëm fa jàkk jëm xanaa seet fa ko neex ba tey julli ngoogu du baax ndax moom it day fa rek kuy julli ba ci biir mu yëg ne moom kat fii mu jëm du xibla benn wóor na ko mbaa jort na ko lool lool dañuy teqali ba xam gumba la am du gumba bu fekkee du gumba itam ndax la mooy xibla dafa bari am bariwut manees naa takk ne bu dee gumba gi moom mu mooy lu bari ak ñàkk mooy lu bari ñoo ci yemoo ndegam daa gumba rek loolu ngànt la julli ga baax na doo wëlbati ko rek jëm xibla mu daldi baax te nga xam ne itam njàccaar la maanaam danay gis waaye la mooy xibla daa néew moom it julli ga baax na néew rek te wëlbatiku jublu xibla mu des nag ki nga xam ne njàccaar la maanaam danay gis bu baax a baax te it la mooy xibla daa bari da nga moom danay gis la mooy xibla daa bari niki daa woon xibla gannaaw mbaa da ak mën di am mooy na xibla lu bari bari kooku moom faaw day dagg te tàmbaliwaat ku julli ba sëlmal doo réer kat fa nga julli woon jëm du foofa kon bu fekkee gumbawut te la mayoon xibla daa bari daañu taamu mu baamu ca waxtu wa mel ni moom amoon na lu mu daan xàmmee xibla defoon na ko itam ba julli ba àggal gannaaw ba nag mu wóor ko ne moom dafa juumoon waaye du foofa kon ndegam moom du gumba te la mayoon bari woon na julli ga baax na waaye daañu sopp mu baamu ca waxtu wa fàtte la waxoon ne ku ko xàmmee tegtali xibla moom doonte gumba la itam day laaj rek ba yoon ko ne ko biddiw ba nga daan tegtaloo fee la féete mbaa nangam fee la féete mu tegtaloo ca noona julli jëm fa ko tegtalee wan waaye la mu nekk nekk gumba du tax rek gannaaw bu amee tegtal mu roy ci keneen faaw rek mu seet tegtal yi boppam kooku nag su defoon tegtal yooyee ba sëlmal door a xam ni moom kat fa mu jëmoon di xibla it kooka duñ ko sant baamu duñ ko sopp ci moom koo xam ne it du gumba waaye lam mooy dafa néew bu jullee ba sëlmal nga gis ne fa mu jëmoon du xibla waaye lu néew la ko mooy woon kooku it duñu sopp ci moom mu baamu te nga gis ba noppi daal mooy lu baree bari gannaaw ba mu jullee ba sëlmal mu door a xam ne mooyoon na xibla kooku la ñuy digal mu baamu ci waxtu wa kan naa sii ni ki aji fàtte moom laa doon wax naa liñ ci jublu mooy ku seetoon ba ne fii la xibla gi féete su may julli foofu laay jëm ba muy julli nag mu fàttee jëm foofa jëm feneen kooku julli ko baax na waaye daañu sopp mu baamu ca waxtu wa ki nga xam ne nag moom xamoon na ne xibla fee la féete ba muy julli kay la fàtte woon ne boo xësee xam fa xibla ga féete jublu fa mooy sart bay tax julli gaa wér doon gi loolu doon sart di waru garam moom la fàtte woon waaye fàttiwu doon moom fa xibla ga jëm mu julli jëm feneen nag kooku moom day baamu faawu faawu ci wax ji gën a wóor di am ne sax ñu ne moo ki nga wax léegi ñooye moo baamu ga wóoru ko waaye jàppal daal ne wax ji gën a wóor mooy faawu rek day baamu julli ga ñu delluwaat gannaaw tuuti rek ci li ñu waxoon ci kuy julli ba ci biir yëg ne mooy na xibla ñu ne woon su fekkee la mooyee bëriwut na wëlbatiku rek jublu xibla te jàll du jar muy dagg loolu kat bu dee xibla goo xam ne da caa topp rek ay xaalmikaay ba man ko ne fee la kaaba gi féete lay doon waaye bu nekkoon jëmmi màkk ci boppam wala mu nekkoon jëmmi jàkk ji ci madina xam ne xibla ga lu ñu dogu la ko moom bu julloon ba ci biir mu yëg ne mooy na xibla tuuti day war a dagg julli ga te tàmbaliwaat dugg ba ci biir kaaba ga nag nga julli la ne bu fekkee loola naafila la te bokkul ci naafila yi feddaliku ni ki jekki-jekki rek dugg fa julli fa ñaari ràkka wala julli fa yoor yoor loolu dagan na ki ñuy wax xijru ismail moom it sañ nga faa julli xeetu naafilu boo xam ne du bu ñu fedd li mel ni nga tudd léegi bu dee nag ca biir kaaba ga la moom boo fa jullee foo jëm rek baax na di wax ne jëmal fee mbaa jëmal fee foo jëm rek baax na bu dee ci xijru ismaayil nag am nañu ne dañ koy far yemaleeg biir kaaba gi nga xam ne foo jëm rek mu baax am ñu ne déedéet moom kay boo nekkee ci xijru ismaayil da ngay wuti nag jàkkaarloo kaaba gi waaye boo ko wanee gannaaw ci misaal du baax maanaam julli sunna yi ni ki wetarat julli koor ca tabaski ba ci ñaar rakkay fajar moom sib nañ nga dugg ba ci biir kaaba ga defe ko ci biir loolu na wuti naag la boroom muxtasar waxoon moom dane woon ayit dagan na waaye jàppal ne am na ñu wax sib ga ni mu ko waxee moom mi taalif yi am na sax ñu wax aaye ga bu wér-wér dugg na ba ca biir kaaba ga wala ca xijru ismail nga julli fa julli farata moom sañee su ko ku ko def itam dana baax sax waaye dañ lay digal nga baamu ca waxtu wa am nañu ne sax bu ko tayoon da koy baamu faawu faawu waaye li gën a dëgër daal mooy aaye nañ ko sañee su ko waaye ku ko defit du tee julli gi dana baax te digal la nga baamu ko ci waxtu wa mooy bu dee tisbaar mbaa takkusaan ba takkusaan suuf di jot daañu bëgg nga baamu ko bu dee timis mbaa gee booba fajar di fenk bu dee suba booba jant bi fenk li nga waxoon léegi mooy dugg ca biir kaaba ga jullee ca ca la teqale woon bu dee farata ak bu dee nafila goo xam ne kenn feddliwu ko ak bu dee bu ñu feddli muy wax nag yéeg ba ca kaw nga julli kooku moom bu dee farata sañeesu ko te dañ caa boole ku ko def julli ba du baax faw da nga koy baamu ba tey it julli sunna ni ci wetar bàyyi ko nur it noonu la moo ko farata jeeyam di nangu kenn yéeg ci ko kaa bëgg di ko fa defee mu des nag naafila goo xam ne feddli ko wut ni ki julli fa yoor yoor mbaa jekki-jekki yéeg fa rek julli fa ñaari rakka am nañu ne sañes na ko awit am nañu ne aay na kay